très cher ami internaute de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu remercier bu baax a baax su ngeen di àndee saa ak sunu ay programme dañu koy door ak Abdul Abdul nag moom li yaayam wax ci liggéeyam ñëw na daal di koy nettali Ajara ba tax nag Ajara daal di koy yërëm ba conseillé ko ngir mu génn kër gi te su boobaa bu defee moom Ajara décidé na daal di koy baal ñëw dëkk ak moom mu mel ni kon li ñu mooy Ajara ak Abdul daal di dund si ndax Abdul ak Adja ku ne xam na ni ñoom ay nitu diine lañu te yéen nag lu baax rek lañu bëgg ñu jàll ci Abdou Abdou nag euh, mujjee na rek daal di merloo yaayam ndax dafa ñëw te ne day génn kër gi yaayam di wax ak moom mu euh, tëkk ko menacé ko ne ko rek dina ko boole ak ku ne xam na ni euh, Adja Umu Ndaw xalaatul ñu koy dénoncé à la police ndax ñaawteef yi nga xam ne nekkee na ko ba tax na mu daal di koy assommé waaye nag loolu tiital na ko ndax mu ko dëree kuur ba mu tëdd nga xam na rek xolu ndey ci doom même bu fekkee toppoon na meram ba def li mu def waaye bi mu paree ci saa rek la xol xol bi yëngu ndax euh, ku ne xam na yaay yërmaane bi mu am ci euh, doom ba na mu woo maalawbe ngir mu jàppale ko ci ndax mënu koo yóbbu hôpital parce ku ne xam na euh, boo jubul lépp foo xam ne yëfu lu légal la ko bëgg a laal te ku ne xam na ni boo demee hôpital peut-être dinañ jéem a xam nan la def ba ñëw ci état boobu te nag moom Adja Oumou Ndaw it lu mu bëgg abdu bëgg abdu lu mu bëgg doom bëgg doom ay intérêt lay jiital ñu jàl si Léya Léya nag moom mi ngi continuer rek di gën a jege Birane di gën a waxtaan ak moom di gën a am ci moom confiance li ko gën a woon mbëggeel euh, ba tax na mu mujjee réussir sax ba am numéro Sadia Bakhoum euh, ci téléphone ki nga xam ni moo di euh, ñu jàll ci Souleymane Souleymane nag moom ñëw na waxtaan ak Léa ci fi mu toll ci li nga xam ni moo di enquête bi muy def si doomu janaa bi waaye mel na ni bi mu dégloo ay conseils ki nga xam ni moo di Léa mujjee naa rek am li mu bëggoon ndax Imam Sougou mujjee na ko wax finalement que ni Ajara ñoom juruñu ko te nag mën na nekk kon xale importance la ndax boobu ba lim bëggoon di ko wër kon am na ko kon imam sugu euh, moom euh, peut-être yërmande ak xam ni euh, nit am na am na looy nekk ci société bi lu ci mel ni imam ñàkk wax dëgg warula la tax na nag mujjee naa wax dëgg bi waaye nag bu sañoon du siiw ndax ku ne xam na ni itam nit boo ko yoree même bu fekkee ni ko juróo ko waaye nga yor ko bi mu nekkee xale ba ni mu màggee doo bëgg rek muy xam ni juróo ko ndax mbëggeel bi nga xam ni moom ngay am ci moom mbokk internet di foofu la ñuy yem ci épisode 80 bu boobu way leen di ci seen série TV te bu leen fàtte bës ci cloche de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf